Malaypo festival mooy euh, benn euh, cadre jotaay bu nga xamante ne ay doomi banlieue ñoom ñoo ko teg ngir indi seen i euh, tontu indi seen i seen i xalaat ci li nga xamante ne culture urbaine en tout cas noonu lay doxee. ak noonu la war a doxee seen i xalaat dañu jàpp que ne lu am solo la ci li nga xamante ne moom mooy ci développement lépp luy culture urbaine e loolu dañu ko war a def ci genre ci jotaay et jotaay boobu noonu li muy li muy permettre moom mooy que ne ñi tële ñu mun leen jàppale accompagner leen ñi nga xam ne mën nañ aussi ñu mun leen fësal ñu mun a fësal li ñuy liggéey parce que dafa am solo ndax loolu noonu yëpp mi ngi tënku ci def ngir sa localité ngir sa gox mun a jëm kanam def ngir ñi nga xamante ne ñoom ñooy artistes yi nekk si sa localité mun a jëm kanam mun a xam fan la ñuy teg seen tànk ëllëg donc Banlieue Hip Hop Festival loolu moom mooy ay tànkam. waaw ci bi mooy euh, euh, édition bu njëkk bi tànk bu njëkk bi liñ ci bëgg euh, ak liñ ci def moom mooy sélectionné nañ six artistes. juróom benn artiste et dañu jàpp que ne juróom benn artistes yooyu aussi dañu xool ci biir banlieue de l'est à l'ouest de nord au sud ñu boole leen pour ñoom it aussi ñu mun a non seulement bokk benn seen bokk proposer seen i xalaat mais aussi mu ñuy permettre pour que ñu mun a xam ne que ne liñ ci bëggoon moom mooy at bu jot ñu jël ñaar ba ñetti gox defee fa événement bi defee fa festival bi waaye nag ak situation bi ñuy dund nga xamante ne muy situation coronavirus muy benn crise sanitaire bu ñu dal ñun ñëpp dañuy aussi tamit euh, dalal njukkal lu mel ni autorité yi nga xamante ne dañu mettre en place dañu teg ay mesures yoo xamante ne waruñu ko euh, jéggi dañ koy respecter ànd ak ñoom mais aussi di leen fàttali que ci loolu noonu dañuy indi ñu ñuni suñuy réponse indiwaale ñu nit suñuy solution ba pare ànd ak ñoom ngir respecter loolu noonu. tey jii nii euh, dëkk bu méttee boo deful ndànk léegi ñu def euh, euh, benn créer benn kujeeg diggante banlieue ak ville xam nga. boo waxee ñu ne la noo baaxlee lépp loo xamante ne ci violence la mbirum caay-caay la mais ñun ñi nga xamante ne fii lañ juddoo fii la ñu yaroo lu ñu am aussi fii lañ ko jëlee wala fii moo ñu defar ba ñu mun a jaax ak ñu nekk ci biti dañu jàpp que ne loolu noonu dañu nettaliwul histoire banlieue yëpp mais ñu ko nettalee su ay ay doomi banlieue nettalee seen bopp dina mën a fexe dina mën a tax doomi banlieue yu bëri seen buntu ñu mun ko tëji mais aussi dina mën a tax buntu yu bëri du tëjoo ngir ndax doomu banlieue mais dañ leen di tijjil par déglu leen parce que tamit damay fàttali que ne euh, tey ñu ngi ci crise sanitaire mais bokk na ci ñi njëkk a jóg di xeex feebar boobu noonu ay doomu banlieue xam nga gis nañ ko ak ci graffiti ak undergraph dëkk ci yëmbal gis nañ ko aussi lu mel ni ci ay rappeurs yu bari tey jii nii def nañ ay morceaux euh, fàttali nit ñi lu bari ne leen nii ngeen di moytoo ne la ngeen di moytoo parce que bu leen fàtte aussi biir banlieue boo demee dañ jàng waaye ñi ci ëpp aussi jànguñu xëy na ñu sax liir affiche yu bu njëkkoon ay affiche rek lañ gis mais ci tew doomi banlieue yi utiliser lépp luy dessin graffiti moom moo dem ba tax ba nit ñi mën a xam ne nii kat laay moytoo damay wut lu mel ni masque damay raxas samay loxo damay moytu di sëqat nii nii mais ma sëqat ci biir mouchoir mais yooyu noonu yëpp ay doom banlieue ñoo ko njëkk a ñun dañu jàpp ne aussi tamit euh, banlieue boobu noonu dañ ko war a gën a jox kàddoom ba mu mun ko euh, di ko wéyal mais aussi di wane ne que ne am na ay solution yu xarañ waa xam nga nag ku ñu xam <laughs> ñun dañoo fier doomi banlieue ku ñu déglu aussi euh, lu mel ni buñ ko dee def day fees dell waaye nag dafa am loo xamante ne aussi ñun mënuñu ko mënuñu ko nangu ndax ne li bu ñu sañoon mu fees dell mais nag dañu ne fi mu toll nii loolu yëpp kiiwuñu ko moo tax boo xoolee sax dañ ko def euh, mu mel ni émission ñu enregistré ko bu ci bu bu ñu paree ci loolu defar montage yi dem euh, joxaat ko encore population ku nekk nga toog sa biir salle mun ko seetaan dina permettre nga xamante ne kenn du ci gaañu kenn du ci yàqule mais surtout aussi dinañ xam ne que ne kat ñun ay responsable lañ te dañoo respecter mesure barrières yi. waaw parce que loolu dafa am solo xam nga tey jii nii li ñu soxal mooy xeex corona. waaye nag sans ñu bañ a ñu bañ a fàtte ëllëg nan lañ koy préparer xam nga li ma la wax parce que euh, li ci am solo moom mooy ñu xeex ko mu pare mais suba nag waajal ëllëg bi dafa am solo et waajal ëllëg bi daf ciy jaar ci ay formation mais surtout ay waxtaan yu mel ni ay dajaloo yu mel ni parce que loolu daf ñuy permettre bu ñu respecter mesure rek lu nekk mun nañ ko waxtaan ngir ëllëg doomi banlieue nan lañ mun a taxawee ba mun a jàmbaarloo leneen ak leneen parce que suba mën na nekk lu si ñun bu fekkee préparé wuñu ko yaa ngi dégg te crise bi rek déjà am na lu bëri lu mu chamboulé am na lu bëri lu mu commencé yàq mais ñun dañoo jàpp que en tant que CCS en tant que banlieue hip hop festival que bu ñu ci góorgóorloo tuuti rek dinañ ko daanaat comme ni ñu ko daanee woon fan yële passé et que dina nekk ëllëg bu leer pour ñun ñëpp